Euh, euh, débat démocratique. waaw deux mille en tout mille neuf ba deux mille douze eu un débat bu tar ci politique. waaw ba ban la. Euh, ah ba ban la. débat wu troisième mandat bi. débat wu gestion Abdoulaye Wade bu tar ci wàllu politique ay intellectuels yu mel ni yow ak ñeneen ak ñeneen société civile bi homme politique bi ñëpp participer ci débat bi. deux mille euh, ci en tout cas ces deux dernières années tamit ñu gis ne bari na ay politique yu bari yoo xam ne dañ leen jàpp ci ay délit d'opinion maanaam ñu jibal kàddu euh, kàddu boobu tax ñu leen ci kaso bi moo am ñoo xam ne sax euh, xëy na buñ leen jugé woon juge ba may leen liberté mais dañ leen jël rek yóbbu leen ci kaso bi fàtte leen fa généw la yow mi nga xam ne da nga fonk débat d'opinion nekkoon ci acteur euh, tey situation bi ngay gis ni que Sénégal délit d'opinion di def di tax nit di nekk kaso juróom benn weer jëmale kaw. su nga lu jiitu ma démissionné Alliance pour la République ak ci cabinet président def àdduna ci li ma àddoo mooy man gisuma prisonnier politique ci Sénégal. ah bon y a hmm. dama ne ba ma ca àddoo man gisuma prisonnier politique ci Sénégal xam nga soxla. sénégalais yi woteel ma du tax may wax fii loo xam ne ni sama nawle yi xamoon lan moo ci sama position dañuy gis ni sama position dootul booba dañ may xeeb te buñ ma xeebee dañ may jébaane te buñ ma jébaane ñu génn ci man te bëgguma ko génn ci man nag ku dem ba war a génn ci man far ma ñaanal rek euh, euh, li ma doon wax mooy. Euh, nga ne gisoo prisonnier politique Sénégal gisuma prisonnier politique Sénégal. amul ci kenn ku tribunal topp na le mandat de dépôt wala leneen lu dul dafa jël baaraamam teg ko ci loo def lu yoon dàq yow boo xamee benn prisonnier boo xam ne nii la mu def tribunal teg ci baaraamam warul tax ñu tëj ko nga wax ko te dama lay ñaan sax nga def lu ko gën parce que man dama la fonk ndax dama la jàngal boo sañoon ki nga jàngal raw la su ma soñoon nga bind benn téere bu am solo boo neex bu la neexee sax mën nañ ko bokk ñu di ko joyanti ba ba mu taxaw mooy lan mooy ñi ñi jàpp dugal leen ci kaso ma def enquête man en tant que journaliste li leen di toppe ndax yoon dàq na ko wala yoon dàqu su ko yoon dàqul nga joxe firnde yi gij naa ci alxuraan su ma jàngee téere bi dama ni ndekete ñi ñu topp ñëpp liñ leen toppee yoon du yoon moo leen teg daan mais tant que defuloo ko toog rek ni comme seen lim bari na kon nag daanañu leen teg la ñu wax a tax ñu teg leen ko weesu na foofu dafa am jëf ju ñu jëf mais dafa am